diwaanu Sénégal ak li ko wër yéen a ko doon laajte mu ngi noonu mooy kay yàlla may kooku mooy alaaji Mouhamadou Canaare di yëngu lépp lu jëm ca wàllum fajum cosaan ak aada waaw moo ca mën yow mi sab avenir daal di jaaxal alaaji Mouhamed Canaare moo ma ca daal di doy lépp lu jëm ca wàllum li saxaar bayre jëm ca kër ga ñuy jaay wala sax wàllum néew kàttan ba ci jigéen ji taw a am boroom kër wala xale bu góor bu taw a am soxna yow mi ñu ameel bor bañ laa fay ba ca xale bu jigéen boo xam ne mënta am doom tama nga ca néegu sëyam alaaji daal di doy gaaw leen gaaw daal di ak moom ca 77 476 01 02 77 476 01 02 adduna baaxoo coow waaye ku wet xam ka kii moo di alaaji Mouhamadou Canaare ka adduna wërngal képp daal nangu ne moom rek mooy kenn ku mën asalaamaaleykum mbokk internetu jàmm ji info maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar eh, di am mbégteeg bànneex saa su nekk rek di janoog yéen eh, ci jàmm ji info eh, rawatina émission bi nga xamante ni moom moo di Adja avec saa su nekk rek ni ma koy defee damay dem seeti ndaanaan toog waxtaan ak moom ci li nga xamante ni ci lay yëngu tey nag ma dalal ndaanaan bu spécial boo xam ne kenn dootu naatable li nga xamante ni moom lay liggéey mu di suñu yaay mu di suñu xarit mu di mama Ndella Xalass yaakaar gis ko ndax gëj naa bégal fans yi lan moo ko waral ak lan lay xaar ak toogaay bi yàgg bi loolee lépp rek dina leex ci bile émission saa su nekk rek ma ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Omar sama cadreur mama maa ngi lay ziar am mbégte ñëw bokk yow jotaay rawatina ci sa diwaan bi nga xamante ni fi laa la fekk mu di Grand Yoff waaw senegal Sénégal asalaamaaleykum waa àddina mhm. asalaamaaleykum sama doom ju ñaaw ji rafet tubaarkàlla ah maa ngi leen di ziar ah di kontaan nag ci déplacement bi nga def ñëw seet si xalaas Xalass uh-huh. ah tubaarkaala macha allah ma di ci bég lool di ci kontaan ah waaw yal nañ ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim rek tubaarkaala eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamina xanaa loolu day neex day neex ah damaa ñëw hmm. daal di def sa bleu rouge bu baax man nag yaakaaroon naa ne ah sama yaay ji mag la waaye ndeke ndeke ah mi ngeeg moom ba léegi de yaa ilaha illallah non maa ki ngele judi waaw laay laay dese naa lu <laughs> euh, am na solo euh, tey nag fi may dooree waxtaan bi bokk na ci man damay faral di dégg à chaque fois euh, tur bi moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko mais xalaas gi man moo ma jaaxal lan moo tax sa tur nga toftal ci xalaas. feeling rek. Ah. xam nga am na morceau bu ma fi defoon ak Ousa Diallo. dama doon wax la laa. Ah. xalaas. kaala mu nekk sama carte d'identité nag ñëpp xamee ma ko. léegi nag loolu moo wéy xalaas jooju ma waxoon moo tax ñëpp di wax ndee la xalaas. waaw muy lu am solo. muy feeling rek. waaw <laughs> waaw feeling gi lan moo tax parce que dañoo xam ne dañuy gis suñu yenn yaay yoo xamante ni dañuy tooy tamit gi mais yow da nga ñëw rek boole lépp lan moo tax. waaw nag bu jigéen doomi géwél nag bu dikkee nag ni yàcc ni ngaf kalul cax nag wax dëgg yàlla ñu war ko koo laaj nag doomi géwél dafa war a saf xorom war di calli calli di malla malli loo màggat màggat desum ngeleju ah muy la am solo. tubaarkàlla waaw. yaakaar naa ne am na solo. maman ñu ñu toog lu yàgg mën naa ni lu lu toftal 9 ans gisuñu la ci ci écran yi fan si di la laaj ci lan nga nekk lan moo tax nga gëj a génn ci lan nga nekk. waaw ndeysaan sama doom. ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sang sangu sang yi ñaanal sama ñaari waajur ya yàlla na suuf sedd ci seen kaw tubaarkàlla macha allah. Euh, dama nekkoon ak sama mag. Mhm. nday jaara géey xam nga ñëw àndoon di diwo. maire jàmbal ah, mu tëddoon nag tëddaay bu yàgg feebar lu yàgg yàgg yàgg yàgg. Mhm. Ah, ba yàlla mi nga xam ni mooy def li ko neex ah, suñu borom bi jël ko. Mhm. tubaarkaal xam nga tëddaay ba di feebar rek waroon naa tax man ma stand by lu baree baree bari. far nag mu dëddu àddina kon tubaarkaal macha allah dama doon xaar rek tuuti rek. Euh, xol bi xaw ko miis tuuti. waaw doog maa gisaat ci télé yi doog maa gisaat ci rajo yi. waaw waaw xam nga loolu nag. mënta ànd daal sama wan la euh, affaire yi ni la jaaral fii ngeen di bokk di def di dindi ba yàlla def la gën ah yow doo man di xuus rek di dem di dem di dem di dem rek foog nga def tuuti def ndànk ba affaire yi seddaat nga jóg. <laughs> waaw euh, gannaaw bi fans yi naka la ñuy nekkee ak yow. fans yi ba léegi lawoon fa woon rek. bu nu gisee Ndella Xalass ba léegi dañuy kontaan. di ma laaj waaye nañ ma xaar. maa ngi ñëw de. waaw <laughs> maa ngi lu tàng jër. maa la wax lii. lu mel ne lan. laay lay li laa maa ngi morso bu doy waar. dama ko làq rek tuuti. Mhm. léegi ngeen gis ma ci télé yi. léegi ngeen gis ma ci rajo yi xaar leen ma. mais ndax dinañ amaat bu mel ni pirate bi sàcc la. non laay lay li laa bii ma yor. liggéey bii ma yor. Mhm. kenn mësu koo gis boobu dàq yépp la ma defal ko nag sama doomi ndey sama xarit. Uh-huh. ajaratu xadi Balla Gueye. tubaarkalla na ma xaar rek. waaw hey bu ma yegsee. Uh-huh. <laughs> dina métti de. muy la am solo kon doxte ci aar demee woon jamono ji ngay soog a dugg ci aar. waaw man nag ngaay laa yaroo. Uh-huh. tubaarkalla ba may am 9 laa fa dem fekk fa sama turandoo. la Mbaay ñun nag quartier bi nu dëkk. kenn du fa tëgg sabar. Mm. bool rek. léegi sama turandoo day dëpp paan ma dëpp bool xale bu ñu fa jox jëkkëram ñun ñoo la laabaan jeeg bu fa am wujj muy sëy si ñoo la xaxar fi may gis nii xaxar rek laa man su ma la xaxaralee nga di ma la xalaas deel xaxar rek di continuer waaw di ànd ak sama turandoo di xaxar ah di laabaan xale yi tubaarkàlla xale yu yi jàpp seen bopp ba ba ba gis seen borom kër <laughs> ci loolu laa commencé tubaarkàlla macha allah ba ni ma jógee ngaay ñëw fi fekk si fi nday jaara gi <laughs> tubaarkàlla ñuy ànd di dem ci ngénte yi di dem ci céet yi di dem ci takk yi tubaarkàlla ah foofu nag laa commencé ndax xam nga doo tëb tëb rek. Mhm. ne sarax ci musique foog nga mbapat. noo mbapat naa nag. waaw ah, mbapat noo mbapat naa. <laughs> muy lu am solo <laughs> yaakaar foofu la ñuy posé ah, foofu la ñuy posé li nga xamante ni moom moo di wàllu musique bi. ñu dem ci li xamante ni moom moo ko yëkkati mu di laabaan ñu ci bëri dañuy faral di wax ni amatul ñii ne am na hankay ah, am na xale yoo xamante ni ba tey ñu ngi seen bopp man foofu laa jëm si ak yow. Mhm. mais ndax dëgg dëgg mi ngi amati ba jamono ji doon taa. soo demee fekk fa tepp teppal ba léegi xale yi géwél yi ñu ngi téye seen bopp ban jox leen seen borom kër loolu moom ñun dafa bokk ci sunu aada dañ day lu ñu respecté day lu ñu bëgg jëmbët ci sunu bopp jëmbat ci sunuy doom mm. ba léegi xale yi ñu ngi leen di laabaan de ñëpp yemuñu nag ba léegi xale yi ñu ngi leen di laabaan mm-hmm. maa la wax lii ñu si bëri dañuy faral di wax nii dafa raar ndax yenn saay sax nga dégg ay góor yoo xamante ne dañ koy faral di waxal euh, euh, laabaan amatul ah mi nga xam mi ngi am man dañu ngi may woo may laa laabaani mi ngi am de. moom kay danga naa ñee fonkudu ko ñii fonk nañ ko waaye nag boo demee fa ndox doon taa. ba léegi di fa fekk tepp teppal. d'accord te à chaque fois su ñuy wax li ni mel ñu ci bëri dañuy wax ne xale yu géwél yi xale yu géer yi lan moo tax duñu leen boole ci li ni mel. ah xale géwél yi de xam nga ne xale yu géer yi moom mooy loolu xam nga géwél rek géwél moom. Mm-hmm. Euh, dafa fonk cosaan. géwél dafa fonk cosaan géwél tubaarkàlla macha allah. dafa fonk li mu doon tamit waaw dafa fonk li mu doon fu nu tollu ñu ngi naan ah yow lii bu ko def ah sa maam yi daawuñu def lii de eh jaaral fii fii la sa yaay daan jaar géwél ba léegi affaire boobu mu ngi ci suñu bopp yi fu ñu toll dañ koy wax suñuy doom mhm. waaw mhm. mag ñi dañ daan wax naan xale bu am ndaw bu la rombee nga xam ka mu doon loolu naka lañ koy xam non noo loolu nag sama doom danay wax rek. Mm. xale mënu laa romb nii rek nga xam am na ndawam amul ndaw xale bi la gën a sopp xale bi la gën a tëlleeral xale boobu moo la gën a téye boppam te bu njëkk nit ñi dañ daan wax aka téye xale boobu. Mm-hmm. téye gi mu téye mais dara. Mm. xale ba la gën a cëppër cëppëri kookaa la gën a téye boppam. mu la am a am ci boppam. maa la wax di d'accord tant que sabar suba teel gi tëggul. mënoo xam xale bi am na ndawam amul ndaw waaye suba teel googu nag mm. boo déggee tuus mm. xam dara ci tuus boo nee teg di nga xam ni xale bu am ndaw la ni tuusal waaw sabar ya danaa teng teng teng teng waaye xale bu mel ni macha allah sabar ga dana du du kenn ko dégg. tey <laughs> nga xamante ni ñoom moo di ñun. ak mm. suñuy rakk. xanaa rek rek doom euh, toog ci sa pooju yaay rek mhm. ndeysaan tubaarkàlla maa ngi am benn morso bu mën a wax mën a fonk na ndawam mhm. tubaarkàlla ah bu bis dikkee ah sa yaay xolom neex lool tubaarkàlla macha allah xale euh, ndaxam sax dem baali mhm. dem doxantu loolu yëpp yàqul xale déedéet. day tax mu gën a xam déedéet loolu day xam tax mu gën a xam àdduna. Mm. ndax xale boo ko tëjee benn tëj bi du xam lu xew. su génnee rek dëkk bi toj. moo tax ma bëgg ñu suñu doom yi ñu leen di xamal lan mooy àdduna bàyyi leen ñu féexal seen xol taxu leen a yàqu. Mm-hmm. déedéet. muy am solo. jërëjëf Mawa <laughs> loolu noonu yaakaar naa ni amal na solo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan kon rek eh, ni ko suñu maman ji waxaatee ni mu ko waxee. bu ko defee rek ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci suñu bopp ndax yaakaar naa ne nag am sa jëkkër rek mu daal di lay fekkeek euh, nga doon xale bu ndaw lu am solo la euh, yaakaar naa ne ñu bëri dañuy faral di wax ni dafa raar mais yaakaar naa ne ba tey mi ngi am hmm. moment ñu daal di dellu rek ci li nga xamante ni moo di wàllu musique bi euh, tey jii ñu gis ni jamono ji bit moom moo gën a bari euh, li nga xamante ni moom moo di live lan la parce que ñu ci bëri ñu ngi naan euh, live dafa seer te dafa metti te pour nga maîtriser ko il faut nga xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom moo di musique euh, tey ji bit bu bari bi lan lay defee ci ci bi. dañuy toog atelier ci suñu kër. Mhm. dem studio répété. répété ak sabar tama. cool tout lépp lépp. léegi nag xale yi dañ leen di defal fële bit ñu ñëw jaar ci kawam gën a yombante la rek waaye lépp a neex. Ah. lépp a neex gën a yombante la da di bit bi. dafa gën a yomb rek. Hmm. waaye lépp neex na live hmm. neex na bit neex na. Hmm. te dafa xew te xale yi bit leen gën a déglu. yooyu leen gën a déglu di fi mu ne nii tubaar tubaarkàlla boo dee mbalax mbalax mbalax bi nag dafa bari. <laughs> mbalax bi moom dafa bari tubaarkàlla man amoon naa benn morceau bit di. Ah. ah waaw waaw amoon naa morso bit de. ndax ndax tey euh, li nga xam ne moom moo di live bi li muy dund bit dina ko dund. non live bi nag moom. tubaarkàlla <laughs> moom fa mu ne woon rek ba léegi ma nga ay daa ay rek. Hmm? ba léegi ma nga fa. Hmm. maa la wax lii ba léegi live fa mu hmm. nekkoon ba tey fa la. bu la sabar tiimee rek tama tiim la. ah tabarkaala nga tojum réew. muy la am solo laay laay di daal. d'accord léegi gis nañu ni euh, képp koo xamante ne rek da ngaa jóg woykat nga bëgg a nekk dafa bari ñu gis ni euh, sëmbaxloo bi daf cee bari ngay gis yenn saa yi ñoo xamante ni euh, ay comédien lañ mais dem nañ ba nekk ay woykat ndax yenn saa nga toog ci sa télé daal di seetaan koo xam ne mu maara day taali su wéyee rek nga jommi tey sëmbaxloo gu bari gi. est-ce que tey bokkul ci li nga xamante ni tamit tey dafa dafay dafay gën a yàq aar ndax yenn saa nga gis yenn way yoo xamante ni danga koy déglu moom maara day daal xam nga rek euh, li naan lu néewi li ne wane tubaarkàlla mhm. euh, aar dafa nekk loo xam ni euh, jërta yàkkamti waaw aar bala nga koo mën dëgg da koo jàng mhm. aar boo ko jàngul boo ci duggee da koy fowe man su ma gisee kuy taasu te mënta taasu dama lay mere waaye gis nga bu ma gisee kuy taasu tubaarkàlla macha allah nga mën a taasu li ngay def nga teg ko ci yoon dama lay bëgg ci sama biir xol. Mm-hmm. barke Serigne Fallou mais nag ku koy fowee moom. Mm-hmm. xoolal danga may soof. waaye dafa mel ni xale yi ñu ci taasu tamit. ah xale yi nag ndax duñu ko foowe mais mais mais ñu ngi ci ñu ngi ciy foraatu nag xale yi ñu ngi ciy foraatu. léegi nga gis xale bu ndaw buy taasu jafe na de tey way léegi daal nii nga moo fi gën a bari. ah doy na waar de. doy na waar daal moom daal damaa bëgg daal xale yi. Mhm. jàngi leen taasu. Mhm. taasu lañ koy jàng. man de sama station femme taasukat bi ma yor. tubaarkàlla ku ci ne relit nga di déet waay. waaw waaw. 300 jigéen laa yor ay taasukat rek. Hmm. dugaluma ci rek benn woykat taasukat rek. ku dul taasukat bokkoo. Hmm. maa la wax lii. aar dañ koy tarbiyu. ah aar dañ koy tarbiyu. ci ngi mel ni tey Faatu Xalaas sama doom. Hmm. bu toogul ci sama wet di ma déglu bu toogul ci sama wet di ma xool ah mm. fas yéenee jaar fi ma jaar waaye kooku nan lay ma ne mm. waaye boo ne waddat fële te tey laay def lii te jàngoo ko ah loo doonul taalibeem loo doon sëriñam yàkkamtee ber sa bopp non boo yàkkamtee doo am lu baax nit mm. da teey mm-hmm. waaw mm-hmm. teey mbappat ba ci kanam fu mu waxee ma ne ko xalaas toogal mën a goo danaan ma yaay booba ko joxee ma jël ko soo ma ko joxut yaay ma foqarti ko daane ci man far force la ma ne ko man joxaguma la ko de jigéen ak ak ak musique naka lay demee parce que ku ne xam ne chantage bi dafay bari te façon góor bu nekk di nga tasee ak moom jigéen ak musique jigéen ak musique dara fulla fayda lu mhm. la tee dem mhm. man de dugg naa ci ba am cinquante ans mhm. te tubaarkàlla macha allah defuma ci lu ñaaw waxuma ko ci te kenn duma ko ci dégg te ñaanuma ko suñu borom mm-hmm. te sama doom yi nga xam ne nooy ni ci yoon wi ak sama rakk yi oh. la dama naa leen fulla mm-hmm. ak fayda la macha allah moo yeggale musique mm. mm-hmm. ndax chantage yu bari non chantage yooyu da ngay jëlla rek mm. waaw bul yàkkamti ba mëq cox da ngay xaar ba soos bi dikk nga raxasu sukk yooyu nuy wax loolu la ngay def mais soo nee tey tey ma am xaalis tay tay ma man li may def tey tey ma dem mm. ah du sotti de mm. loolu boo ko defee foog mu jaar sa kaw kenn du yàkkamti mm-hmm. bul yàkkamti dara mm-hmm. waaw ndax dara yàggul ku defe ni dara yàgg na boobu juum nga dara yàggul mm-hmm. waaw parce que nag boo yàkkamtee topp santaas topp sa bëgg-bëgg ëllëg da dem mag de ah waaw ah, <laughs>